Euh, l'histoire va retenir mais l'histoire aussi va retenir que c'est la première fois au Sénégal ñu nar a def ay campagne dugg ci biir weeru koor di ko def ban jàngat nga am ci euh, loolu bon campagne bi moom li fi nekk pour la pour une première dafa bari li ci dajale ñun ba depuis 73 ba léegi ñu ngi suivre élection yi gis nga li am ci élection fin de mandat bi li am ci élection présidentielle wala dox élection rek laa wax bii mosu mhm. fi am ci l'histoire de Sénégal l'histoire retiendra déjà euh, ñaaw na ba pare politique élégance la politique fair play la politique gentleman la politique fair play bu ñu demee ba George Weah Libéria bi nga xam ne guerre nañu quatorze ans muy dëkk boo xamante ne ba léegi booy dox sa impact bal yi da ngay gis mu dekk ci miir yi élection am ñu gañe ko mu am fair play jël balam ndànk félicitation gaa génn dem di football yi fële jax waa ji ne continuer ay Ghana yi jëriñu ñu si yoroon dëkk yoo xam ne ay coup d'état la ñu amoon joxe seen affaire per play mais ñëpp di ñu xool ñun mosuñu sa dund yi ñun élection da nga daan toog dañ ko daan yàqamti parce que dafa amoon benn genre euh, euh, euh, foo mm-hmm. ak liesse populaire après mu am benn genre crash boo xamante ne dañ koy def comme ay cousin cousine bay mu mujj bi nga dégg kii naan bu ma demee fee toj ko ki nem fii toj ko kii fii toj ko ma dikkee Ablaye Wade Senghor kii naan bopp amul karaw ki naan ko lay njombar monsieur Forage madame Moulin façon yooyu ñun façon style politique boobu la ñu xamoon mais dem nañ ba fii lekkuma ci mais doo ci lekk bool baa ngi nii ba mu yàgg ma ne yow sax doo ci lekk ni nga may xoolee neexuma yow doo bokk suba gis naa la yow ni nga may xoolee élection yow doo ci bokk yow doo bokk warul demee noonu gis nga fii euh, cere ji lekkuma ci keneen du ci lekk te PDS comme ni ko monsieur Ndiaye waxee mais bu doon sax koo xam ne bokk na ci 19 bi ñu mën a wax bokkul PDS na natt boppam amul baag ñii amul baag ñi ko rootaloon ba mu amoon sax tuuti ndox ñoom la ñu njëkk war bàyyi leen parce que bu dul woon euh, waa AP waa waa Pastef yi teen bu njëkk ba sax li mu am as néew du ko am ndax PDS kon deux députés sax du ko am ci assemblée ba nañu waxante dëgg parti bu dee dee na gis nga parti bërigo biy jógee ci kaw nga di ko bërëg mu daanu moo gën a gaaw bërigo bi nga jëlee ci suuf di ko yéegal ci kaw stratégie boobu nañ ko xool bu baax gis nga yàlla buy fal buy fal président. man ne woon naa leen kii ñëw tokaar lay doon boo xam ne kenn du ko foog mën na dem par hasard mais man ba may wax xalaatuma jomaay mii nga xam ni moom lañu désigné sax billahi gëmu ko woon mais Ousmane Sonko il est dangereux parce que ba muy enregistré ay enregistrement am di ko teg di ko duggul kenn tëju ko kenn defu ko dara mu teg yooyu yëpp stratégie teg ko parce que booy yi ay dañuy wax ay ingénieur politique mais billahi ñu ngi doog am ingénieur politique fii Sénégal dañ leen a xeeboon sous leen naan ay xale lañ amuñu espéré fii école bu ñu fiy jàngee gérer gérer république amu fi. fii école bu ñu fiy jàngee pour nekk président rep amu fi. balaa ñu naan de euh, cursus. balaa ñu ne lan moo tax kenn taxaw fi naan waaye réew mi duñ ko jox ku deful daara wala déet. di jéem a sous-estimé Serigne Boub Serigne Boub li mu fi indi kan moo ko fi indi li mu fi créé ci emploi kan moo koy fii lu fi baax borom daara ñoo ko fi def ak doomu daara commerçant yi Boris Bocar Samba Dièye nga xam jàng gis nga affaire intellectuelle bac laa am ak licence la am loolu mooy yor réew réew juba ko yor dëggoo ko yor ragal yàlla ko yor xol bu yaatu ko yor dënn bu yaatu ak dëggu ku ne weex weex la lu ñuul ñuul la waaye lii weex ba pare nga ni ko et puis ñun Sénégal dañu am benn particulier boo xam dañ koy joué ci et ko incarné ci àdduna bi ñu sakk ñu jox ñu sunu sakk mais fi mu ne nii sunu sakk gépp dafa yàqee ko ndax ñii ñun ku daan jël référence ci Afrique ci politique ak démocratie ñun ngay jël def ñu vitrine suñu université ku ne yaa nga ñëw ba dugg ci université de Dakar jàng fi boo demee sa dëkk da nga naan il est sorti de de l'université de Dakar c'est vrai mm-hmm. parce que ñun ay référence nañu quoi mm-hmm. mais léegi fi ñu toll nii lépp a défilité wu ñun mënuñoo lool mënuñoo yedd kenn mënuñoo yedd kenn ci démocratie mm-hmm. mënuñoo yedd kenn Karim tojul fenn turam bi sax mënuñu ko waruma ko tuddee Rimka tojul fenn la bàyyam tojoon toju ko lii mu amas néew Pastef ko jox na leen gërëm sant leen. tojul de waaye moo waral coow li. bon ñoom it dañoo dem ba ci biir man dama waaru politique bi ren bi mhm. parti bu élection bu am ñetti premier ministre yoo xamante ni dañuy contre ci nga xam ne moom lañ fi nekk tegoon système bi. Mhm. ñëpp diviser di dal ci benn camp. Mhm. c'est inédit c'est inédit. bi nga xam ne mooy seen propre candidat. nga dem ba ci biir. parti bi diviser wu en deux ànd ak moom ñii ànduñoo ak moom. te loolu dara waralu ko loolu ñàkk transparence ak ñàkk njub Sénégal nañu sax la jub nañu jàng jub tey wax njub tey def jàmm gis nga ñi fi ñu bëgg jëmee c'est pas bien du tout mais nag mënuñu si dara élection dana am ci jàmm ak salaam seddaay ñu xëy voté ndekki ñu jubilé yàlla jox président bi nga xam ne moo ëpp yërmande ci sénégalais ba ñu jox président boo xam ne day naxaate ak di luubal ak di nax askan wi ak di leen wax loo xam ne gëmuñu ko booy yii bu ñu gëmul li ñu def jomaay seen jomaay du fëll du génn parce que waa AP waa Pastef sa mosuñu xalaat ne Jomaay dana dana dana dana dana dana danañ ko jël. et pourtant nangu nañ ko. te nangu nañ ko. Sonko fi mu leen gagné mooy projet la. bu dul man na lii dem. même bu ma dee sax bokkuma na ngeen jël projet bi ngeen yóbbu ko benn président de l'histoire du Sénégal mosul conjugué verbe politique wala verbe pouvoir ci ni ko Sonko foogee nañu dem ba ci kanam. parce que dinaa ciy rebondir Thioro sama ko may. allez-y allez-y wax mhm. nii damay dëggal li nga wax dama koy conforter. xam nga lu tax loolu mun a am. xam nga management dañuy wax ne la manager est modèle. oui yaa gis njiit dafa war a montrer la voie yaa gis Sonko réew mi da ko jaral mu dee gars yi gis ko. c'est grève de la faim. Mhm. yàqal ko liggéeyam. dàq ko teg tuuma ci moom ba pare tëj ko kaso mu dund ko dignement kon gars yi dañ naan kii mot nañu ilimaan mot nañu njiit kon su ko waxee dinañ ko topp. loolu laa la bëgg expliquer. Mhm. mais c'est ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui wax ne xale la c'est un faux prétexte. am na benn proverbe bu naan aux hommes bien nés la ah, valeur yaa gis nekk kilifa nekkul ci ay at. déedéet di nga gis mag la preuve gis nañ ko Sénégal suñu mag yi. te sax xale bu loxoom mhm. nekk. Mhm. di nga xale yoo xam ne seen loxo set. dafa set parce que mën nañ bokk ak ñoom. loolu moo am solo. Mhm. autant am nañ des vieux qui sont très bien. Sénégal yàgg na am ay références des compétences des sommités autant aussi de l'autre côté on a des gens yoo xam ne vraiment c'est à déplorer. pour wan rek ne la l'argument de la jeunesse ça exemple. dañ naan ñu fan ci jafe kon donc loolu nekkul pour man benn gage. non non non na tax nit ñi nga xamante ne ñu ngi waaj a ñëw wala boog candidature bi war a gis baatu homme d'état laa bëggul dégg. yaa gis côté management sëñ mhm. wax na benn affaire dem bu am solo ci waxam nee na bi muy dugg rek la xalaat génn dégg nga wax nee na bi muy dugg xam nañ dinañ accroché photo il pense déjà à la sorti surtout surtout yooyu bàttin la ci dëgg la. Mhm. parce que xam na ne du ko mujjee. ndax nee na yaa vingt neuf photos yi fi nekk kon maa ñëw trente leen kon donc du njëkk te du mujj kon lan lañ koy jàppalee wéyam bu rafet waaw loolu nag mooy am ci njëriñ xam nga te su nekkee da ngay def politique yow nga yaakaar ne njuuj njaaj ak naxante ndax maa gën a ëpp xam-xam ñoom baat naan wuy mun politique lu ñu woowee génie politique mooy lu mel nii yaa gis hmm. politique du biir déedéet waaw loolu moo am ci kawu Diomaye. d'accord kenn moom ko je voulais simplement appuyer sa mm-hmm. position boobu. en tout daal mooy loo xamante ne lu jóge ci kaw asamaan si la wadd suñu kaw. mënuñu si dara ko mu neex ko mu naqari loolu yàlla mooy fal mooy folli te dëkk bu dogalee nañ ko nangu quoi. Mm-hmm. Euh, li yàlla dogal. kenn mënu ci dara fii ku ne woon Macky Sall du fi nekk président de la république da ngay dee rek mënoo ci dara yàlla dafa tracé affaire bi dafa leer nañ léegi nag mhm. nañu bàyyi affaire bi dem sénégalais yi ñooy voté man damay wax sama avis personnel mhm. mais li tax li koy firndee dëgg moo ñu dem ci élection koor la nekk mhm. ñu xëdd voté ji boy yi nee nañu quatre heures du matin la ñuy dem ñoom. dëgg la incha allah dëgg la boy yi ma dégg. dëgg la nee nañ quatre heures la ñuy dem vote bi huit heures lay commencé ba ñoom quatre heures la ñuy dem rang. incha allah mais loolu contexte moo koy waral Thioro excuse moi. allez tax ma wax la ci weeru koor bi lu mu am solo. Mhm. yaa gis état de nature xam nga tax ñu ñëw dans la société dañuy arrivé à un moment plus à un moment boo xam ne existence nit ñi sont menacées par les intempéries. par l'hiver. Mhm. les dangers. Mhm. il est arrivé à un moment où notre existence était menacée. il fallait s'unir ou disparaître. dëgg la ku la ñooy intelligence situationnelle sax ci management yaa gis mbir lu nu kët lu nu jonn moo koy faj. way dugal nañu ci lii fa ngay gënee mm-hmm. daa def seen meeting suñ dogee gi le matin ñu def ko digital ak des campagnes de loolu situation moo ko indi moom moo koy waral. parce que xam lu tax élection yi def ni sëñ bi. waaw imagine pour la première fois dans ce pays nga gis un candidat bu jël temps d'antenne di ko jox beneen candidat. surtout mais parce que lu tax contexte bee ko waral. Mm-hmm. ndax dañoo dem ba règle du jeu ñu bafoué ko. ñëpp mais sëñ bi nit ku nekk on se bat avec les armes dont on dispose soo gisee ku mel ni Habib Sy nangu jël temps d'antenne am di ko utiliser Sonko mais parce que fi mbir mi toll moo tax. Mhm. ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye parce que lu tax xam lu tax yaa gis mbir suñuy dox ba ci biir ñu am situation bu ñu dab dañuy xool lan moo ko laaj ban réplique la laaj. réplique boobu la ñuy joxe mais en temps normal ku nekk dafa doon am bannière am am programme défendre mais yow ñu war la fal nga ko keneen mais am na leen lu ci nekk ci biir. xam loolu hmm. la générosité mooy waral man ma yor nii ku ma gën a soxla ma jox la ko. le projet loolu moo moo rafet. mooy mooy gentleman bi ma la wax ak hmm. galante hmm. te nag nangu xañ sa bopp jox keneen yaa gis loolu buñ ko minimiser li ñu leen am nii. day wane yéwén bi am ci nit ñi dooñu ko gis ci politicien te daawul am moom la bëgg a wax li ñuy conjugué yëpp c'est mois moi moi rek ah, et le moi ay saabul depuis très longtemps man la man la man la du yow da ngay xaar ba ñu waxal la ko. instant bi lu ñu gis nii mooy nit ñi. dañoo nangu xañ seen bopp. ñee moi la ñu wax waa Pastef la ñuy wax. waa Pastef nu waa ma ma ma Pastef na nu nu nu ñu ubbi ay campagne merci beaucoup. alors Ange noo gisee li nga xam ne moo di ouverture campagne bi gis nañ ñu bëri génn nañ yow boo doon situé mbooloo bi fan la ëppee fooy situé gis nañ bosu Amadou gis nañ ba su euh, Diomaye président Pape Djibril Fall gis nañ ko Déthié ñoom ñëpp gis nañ leen